nañu que ne assemblée nationale fan yee weesu euh, mayaat nañu wala voté nañu modification boo xam ne mooy code électoral bi permettre tey ji Khalifa Sall ak Karim Meïssa Wade mën a retrouver seen yi jëm mm. euh, promulgué nañ ko ba passé na au journal officiel maanaam tey ji daal Khalifa ak Karim moom ngi ci liste électorale yi mën nañu nekk boo xam ne yéen doxee ngeen ko ñu woote dialogue nga dem ci dialogue est-ce que dafa am lu mu yàq ci digg ak say alliés ñu woote dialogue nga dem dialogue. waxtaanewu leen ko xëy na. xalifa jour bi muy ñëw di bindu si di bindu si Grand Yoff mhm. pour buka bokkaat si liste yi jour boobu la waxtaanee si biir Yewwi fa la jógee ñëw directement foyer Grand Yoff ñu ne ko point boobu du ñu si waxtaan léegi dañ mhm. koy différer xalifa deful dara wax ko waa Yewwi donc xalifa wax na leen ne yeeyu taxaw day dem dialogue dialogue bi mais Mamadou mhm. li dafa yàgg du tey ah boo seetloo le 23 juin 2021 mhm. le 23 juin 2021 am na rassemblement M2D mhm. bu ñu doon def en face stade Léopold Sédar Senghor dama toog dama nekk génnoon Dakar sama téléphone Abbas Fall woo ma téléphone bu Pastef. oui ne ma monsieur le maire dañu war a rassemblement en face stade bi ñu bëggoon nga accompagner ñu préfet nee na foog ñu indi léegi léegi leetre bi. Mhm. j'ai tout fait nekkuma fa mais fexe naa ba ñu bind leetre bi ñu yónni ku leen ko jëlal ñu yóbbu ko supérieur ñu autorisé ko. Mhm. mais à ma surprise man ba ma ñëwee si biir di wax dañu ma doon yuuxoo. waa Pastef nga def loolu waa fii. loolu li nga wax ni xaw na yàgg ah. oui du démb tey. fa la loolu départ. mais qu'est-ce vous reprochez. non parce que ñoom jàpp nañ ne li ma gëm ñoo war a nekk fépp. ah may ma rek ma ñëw. Mhm. foofu la ñu foofu laa am lecture man bu yàgg. xam na li ñëw tey jii dama yëpp bett ma xam nga daam ay kàddu yu waa Pastef wax di wax te muy dëgg. Mhm. te ma nongul leen ko. mooy sénégalais yi dofuñu sénégalais yi yeewu nañu. Mhm. loolu seen wax la. sénégalais yi kenn mënu leen nax dëgg la dama bëgg tey ñu témoin. Mhm. sénégalais yi seede ndax ànd bi ñu ànd ak ñi àndal kan moo si góor ak ku si traître. on vous qualifie de traître vous. voilà waa taxawu Sénégal. moo tax par rapport aux moo tax ñun daañu wane li tax ñu war ñu xam ne ay góor lañu. ñu traité nañ la xool feneen Sénégal yi am nañ xelu apprécier après. distingué ràññee. distingué xool li xool li ñuy wax foofu laa njëkk ñëw man ñu xaw ma. te dara xewul woon boobu. dara xewul parce que ñu ngi doon préparer élection locale yi ñu pour ñu wane ne devant président Ousmane Sonko ak ñeneen ñi mu jóg waa grand bëgguñu ko pour ñu teg fa seen candidat ñoom. Hmm, fa lañ jaar tout ça voilà. donc loolu moo dem ba bi ñu la tànnee pour Grand Yoff am ñu beddeeku. exactement votel votel keneen. loolu loolu loolu jàll. su ngeen déggee sama discours keroog maa ngi doon wax naan fii grand yëpp tey ñoo aye ñoo leen recevoir. Mhm. yéen ak teg na leen woon ba mu së. parce que dama doon yóbboo et sama biir commune la te su ma neexoon ndaje bi tas. Mhm. mais defuma ko bi ñu jógee foofu ñu dem biir yi Askan Wi bu ma Khalifa Sall di tànn man pour ma nekk candidat Yewwi. yi Yoff Grand Yoff daa am leader yoo xam ne ñu ko ne du fa ma jóob d'accord uñ ci mooy leen man may tànn ma jóob ndax Grand mooy sama fief. Mhm. am na vous étiez le aussi. voilà imaginez ñu ànd ak ñoom dem biir yeew yi ñu tànn ñu biñ ñu tànnee ñuy préparer defar suñu liste yi. Mhm. lépp luy réunion ñu ñoo ko bokk. toutes les réunions les rencontres ñu ñoo ko bokk ak ñoom ba jox ku nekk kotaawam. Mhm. ne ku nekk am nga temps de temps de conseillers sur la liste majoritaire titulaire comme suppléant temps de conseillers sur la liste proportionnelle titulaire comme suppléant mhm. ñu tànn sunu mandataire Abass Fall woote changé suñu mandataire teg fa benn élément positif te lépp tënkoon ngeen ko bu pare waaw ñu dégg ko dem siège li gàpp fekk leen fa ñu ñëpp dem si docteur Kane bu pur mhm. ñu mu recevoir ñëpp ñu toog ñu xamal ko ne El Hadj Ibrahima Ndiaye moo suñu mandataire mu wax ñu jox procès verbal mu gis yëpp ne ah lii c'est vrai ñu changé ko joxaat ñu suñu mandataire bi ñu tànnoon. Mm-hmm. bi ñu demee ba nga xam ne. Jean Pascal Kébé modifié frauduleusement. non non moom moo waaw moom lañu moom moo wax ne moo wax. Mm-hmm. pour seen mandataire c'était euh, Babacar c'est responsable de Pastef à Grand Yoff. ok waaw moom lañu defoon mandataire alors que ñun defuñu ko mandataire te xamuñu ne bi ñuy def réunion bi. cette rencontre la mm-hmm. dégg woon nga ñëpp signé ci bi sax. pour El Hadj Ibrahima Ndiaye. oui après bi loolu jàllee ñu joxe quota yi bi ñu ma tànnee ci la Boubacar Camara génn Yewwi. Mm-hmm. on s'en ne moom nekkatul Yewwi ñu joxe quota ku nekk ñu war a déposé liste yi jour bi ñu déposé liste yi à vingt heures vingt heures la ma Khalifa Sall woo ne ma Pastef bàyyi nañ la hmm? soo toogee da ngay forklu vingt heures ci war ñu ngi war a déposer ñu ngi war a déposer yi. 23 heures minuit. avant zéro heure. avant zéro fekk maa ngi topp ay affiche foofu noonu laa bàyyi affiche yi dem. dem lijjanti te maa te ñoom seen quota boo boolee Pastef bu président Ousmane Sonko. Mhm. avenir Sénégal bi ñu bëgg. waaw docteur docteur docteur Cheikh Tidiane ak ak ak jëng bu bu war Camara. Mhm. ñoom bu boole woon seen quota ñu leen joxoon mot na 40 conseil titulaire comme suppléant no xam nga boo boolee boo boolee 76. nga am titulaire. ok suppléant day bëri. nga boole proportionnel bi. d'accord d'accord je comprends nombre mhm. mais ñu ñu titulaire comme suppléant la ñu dem ba si vingt heures ñu ñu ko wax te ëllëg la gën a graaw bu ñu leen di oo ñoom dañ naan ñu ngi ñëw ñu ngi préparé. kon yéen bu ngeen toogoon ak seen confiance rek. tey jii leneen leneen la ñuy wax. loolu yëpp acte posé la par Pastef. waaw depuis mille vingt et un mille vingt deux. loolu actu gor la wala acte jaam. mais yéen waxu leen ci dara. communiqué wu leen ci. vous avez laissé faire. nit ñu yaree. nee nañu aussi lu waaye nangu teg ko ko daggan na. nit ñu yaree non non góor lu mu nangu wala ko ko tegee su dee jaaduwul. Mhm. ñu jóge foofu teewul on s'est battu on s'est battu ba déposer li si avant avant minuit. ba pare sauver sa candidature ba pare gagné. ak voix large bu am solo. Pastef bu am solo Pastef ñi mu àndal. Mhm. benn voix lañ am benn conseil lañ am. benn conseil Pastef ak benn bu jéngu mu ñaar seen liste amuñu 2000 voix à Grand Yoff. Mhm. bu ñu liste yi paree nag ba ñu déposé ba génn daam am ñoo xam ne ñu ngi Pastef ñoo ne ma ñu kat ñuy def jaaduwul d'accord ci léegi dañu bëgg ànd yow ñu liggéey mais léegi ñëw leen. loolu loolu c'est de naïveté mais mais fekk na maanaam yéen vous avez vu venir le mal. mais da ngeen a bàyyi mu mu mu mu prospérer. non non ba étendre ses tentacules. fooguñu woon ne. dina egg fi ñoom dinañu wor à ce point. ko àndal ba balaa ba ba le jour. da ngay war dépôt ay beneen bi bi ñuy def dispersing bi. Mhm. pour mairie yi ñu ne fu maire taxawu nekkoon dañ ko fay bàyyiwaat. waaw reconduire les maires. fu maire taxawu nekkoon te dem dañ koy waxtaane mhm. mais xalifa à dakaar bàyyi na Pastef ñaari mairie yu mag. parcelle ci la bokk. parcelle Patte d'Oie. Mhm. beneen maire Pastef bi poste bi mu yor moomu ko woon. dégg naa dafa changé fi à la dernière minute. MRDS moo ko moomoon poste boobu. moom mu nekk mandataire bi. mu dem changé ko def dem ba ci biir ne leen bu ngeen ma deful tëdd liste ma changé seen ma ma changé ma téye liste yi ngeen forkuloo. ils étaient obligés de céder. waaye MD chantage bi MRDS bi ne ko man góor laa du ma nangu yeewu forkuloo jëlal nga nekk maire noonu la nekkee maire. et il est de passif. loolu góor la wala jaam la. mais monsieur le maire man loolu yëpp maa koy dégg di la comprendre mais li ma bëgg a xam mooy comment que vous avez pu laisser faire pendant tout ce Euh, changement dina am wala da ngeen a ne aussi vous avez encore besoin de pour échéance yi. non ñun bu ñu ànd ak ay góor bu ñu njëkk a yàq ànd loolu ñu def dañ koy muñ loolu def dañ koy muñ fexe liggéey nag lu ñu fal ñun beneen bi et pourtant li Khalifa Sall defal li Khalifa Sall defal defal Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane defal ko Khalifa au niveau de la région de Ziguinchor. non Khalifa Sall Ousmane Sonko il a permis à Khalifa de revenir politiquement. attends tey jii nii ñu waxee taxawu revenir sur la scène euh, c'est un peu à cette coalition. ñun depuis 2000. la Abdou Diouf wàcc PS daanu. 2000 mhm. ba tey on est resté dans l'opposition. vous avez été au pouvoir ah xëy na yàggul. non avec après def nañu déedéet ñëwuñu pouvoir ñun ñun 2000. oui lañ nekk opposition. Mhm. ñu ñëw 2009 Khalifa gagné Dakar ak taxaw ak Benno Siggil Sénégal. ak taxaw dakaar lañ demee de lañ lañ demee Benno Benno lañ demee. Benno Siggil Sénégal lañ demee 2009 2014 da taxawu ñëw. Benno Siggil Sénégal lañ demee 2009. Mm-hmm. Khalifa nekk maire. ñu ñëw 2014 2012 ñu ànd ak Macky Sall. voilà le président mm-hmm. bi ñu ànd ak le ñu fal ko présidentiel jox ko majorité assemblée nationale Khalifa ne leen léegi falu na nañ leen repiler liggéeyal suñu bopp. ñu dem 2014 ñu teg mimiture mu jàkkaarloog xalifa à Grand Yoff. Khalifa créé taxawu Sénégal assumé wu taxawu Dakar assumé wu jëlaat mairie Dakar. Mm-hmm. ba tey ñu ngi opposition. ñu ñëwaat 2019 Khalifa nekk candidat ñu jàpp ko tëj ko si li mu wax fii yëpp. oui teewul duñ ànd ak sunu ngor ñëw toog ba tey ñu ngi opposition. sauf que li ma bëgg wax mooy après la libération de xalifa Sall bi mu génnee kaso. maa boobu noonu yëf yi teg kaaroo na. mais li bi. déedéet mais ñu mais lu ngeen xamoon ne ne da ngeen soxla ñi ba tey maanaam li ñu naan à malin malin et demi ànd. Mhm. ànd ñoo kenn pour di la muusante bu ñu la muusante balaa ñu jox Sonko ñaari maires yi Thiès pan Dakar. Dakar ne ko jox ñu ay maires Ziguinchor mais sur 30 communes. à Ziguinchor amuñu benn. candidat sax taxawu Sénégal. mais est-ce que est am ngeen un peu de force ma ko ma tudd noonu. non Ziguinchor maanaam li ñoom li ñu am à dégg sax El Malick Ndiaye. oui. mu ne ñoom dañu nekk parti boo xam ne ñu ngi partout dans le Sénégal. oui ils sont implantés fu nekk ña nga fa. am na parti yoo xam ne il faut avoir am na parti yoo xam ne biir taxaw biir yeew yi amuñu fu nekk ay représentants. Mhm. kii c'est la liste au niveau de Ziguinchor dans chaque commune. dans chaque département dans chaque village. à Ziguinchor taxawu ma nga fa. la région de Ziguinchor. ba mu daj. temps bi du bu ko mayoon ma lire ko benn par benn non par non. Mhm. et le le numéro téléphone mi ngi. da koy bàyyee après rek. voilà mhm. par commune par département. et ce qui est pire mooy par rapport ak euh, département le conseil départemental ñun ki ko ki ko bëggoon ki ko bëggoon jël exemple au niveau au niveau de de de de taxaw Sénégal mais c'est un docteur. Simon Tendeng. il nga taxaw. ñu dindi ko teg fa koo xam ne transhumance après la jóge ñoo ne passé la bokk ñu teg ko conseil départemental bu Ziguinchor ba pare noo mën a comprendre mais pourquoi vous avez laissé faire loolu yëpp. non non c'est que. c'est ça ma loolu laa comprendre lu ñu wax mu ne gars yi noppi leen ngeen mun bu leen yàq élection yi. oui mais on est en politique bu leen yàq élection yi mais dañu jàppoon ne ñun. ni ngeen ko seqal. ay gor lañ seqal maintenant na Sénégal yi xool. kan mooy gor kan mooy jaam